ginnaaw bi ñu sant yàlla rek di dund ci yonante bi sant suñu ñaari waajur di sant bu baax internet yi ñuy topp fii ci Leewtoo TV chaque jour ngir leen di indi li gën a fës si bopp xibaar yi ci nuyoo bi nag dama ci jiital borom kër gi rek di ci Pape Thialis Faye di ko nuyu baax di ko ñaanal jàmm ju baree bare Assane waalo bàyyi ma njëkkee bàyyi ma njëkkee ci kii mbay nuyu naa la <laughs> fay naa la nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yëpp ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam. Assane Waala nuyu naa la. Ndeye Mbacke fay naa la nuyu mooy Babacar nuyu internet Leewtoo TV amaan mbégte jàkk mbégte jàkkaarloo ak ñoom. mu ngi noonu di leen fàttali ba léegi seen huile j'adore moo leen di may seen revue de l'arène bi chaque jour di leen wax ne rek c'est à conserver mooy durin bi gën ci durin nii moo mën ci durin nii mu ngi noonu mardi 16 mars 2021 bu njëkk battre Ama Baldé et conserver sa couronne Modou Lo sa défense au la rose kii di Modou xarañ loolu nga xamante ne bii moom mooy roi des arènes bu làmb jamono yi guddi yi ñu toll moom nee na ngir mu mën a téye bu baax a baax couronne couronne bii di roi des arènes il faut mu daan Ama Baldé jël bu amul benn werante ba tax na ma nga fële ca Lac-Rose di waajal boppam bu baax a baax. dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee pour battre Modou Lo pour battre Ama Baldé et Modou sa défense au Lac Rose noonu la ko journal suñu làmb waxee nee na daal Modou pare na pour conserver titre bii nga xam ne jëlee woon na ko ci Eumeu Sène le 28 juillet passé ginnaaw bi mu kaawoo kooku di leaderu Tay Shinger nee na Modou Lo nag mi ngi ci salle de boxe yi mi ngi ci salle de musculation yi waaye mi ngi également ci plage yi rien pour mu garder titre bii nga xam ne moom la jële woon ci Modou Lo contre Ama Baldé bi nga xam ne seen combat bi ngi ko prévoir après weeru bi mu ngi noonu retour du public dans les stades les acteurs de la lutte applaudissent ñu gis ci ci page ki nga xam te ni mooy Assane Waalo nekk fii ci Leewtoo TV ak Malick Thiandoum Baye Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke gannaaw ba ministre bi yëkk yëkkatee ay kàddu ya nga xamante ne bii amateur yu bëri am nañ ci mbégte ak contentement mu mel ni ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo seq làmba ji tamit euh, ñoom tamit am nañ ci mbégte bu baax ñu mën ci ràññee ki nga xamante ne bii. moom mooy euh, Malick Thiandoum bu ITV wante mën cee ràññee kii di euh, Moustapha Thiam nekk fële ci Africa set wante mën cee ràññee ki nga xamante ne bii tamit mooy Tidiane Faye bu Lansar wante ak Assane Walu Gueye bu Leewtoo TV ñu ma jàkkaarloog moom nii mu nekk borom xam-xam ba nga xamante ne bii kenn dootu ko werante ci wàllu làmb journal bi seq nañ ci ak ñoom waxtaan ku ci nekk andi sa xalaat ci li ñu war a delluwaat ci sat dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee Lamine Ndiaye bu nekk euh, suñu làmb moom moo def euh, entretien boobu ak journaliste yi comme ni nga ko waxee nag wax na ci ak Malick Thiandou wax na ci Gora Ndoye wax na ci ak Tidiane Faye Moustapha Thiam Assane Waalo Gueye euh, Malick Thiandou moom ni wax nee na c'est une aubaine pour le monde pour tout le monde surtout pour la lutte nee na nag huis clos bi affaire boo xam ne nii lu naroon a géey la kon ba ministre bi pour que ñu retrouver amateurs yi ci stade loolu lu baax la Gora moom mooy président AJAL AJAL moom mooy association des jeunes amateurs de de lutte du Sénégal moom nag nee na lu wax noonu un peu euh, affaire boo boobu nag dañ defuñ ci li dul kontaan ci ndaxte. commencé woon nañ tiit huis clos bi dañ leen a naroon a écarté ci arène bi donc décision boobu bu baax la kii di Tidiane Faye moom nee na musul gëm huis clos Moustapha Thiam nekk Africa 7 7 TV moom nee na décision bi décision boo xam ne nii à saluer la. Assane Waale Gueye lu mu ah Assane Waale Gueye nee na affaire bu baax la rek. <laughs> mu ngi noonu Côte d'Ivoire ki nga xamante ne expert la en combat liste les les points forts et de l' du B52 de mu ne. il a un crochet très très redoutable. wallahi mu ngi noonu kii di coach Diago nga xamante ni bi ñëpp dañoo ràññee xam-xamam ci wàllu euh, sport de combat journalu suñu làmb tey dafa seekaat ak moom waxtaan comme ni mu koy defee jamono yu nekk euh, mais coach su tey li mu ñëw ak euh, ñun nee na ñëw na ci point fort yu yu yu Pudzianowski yemul foofu nee na bomba kii di Bombardier moom moo war a commencer xeex bi moo war a attaquer warul nekk sax di xaari adversaire am bii mu ñëw. dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee coach Diabon liste les points forts et faibles de Puja Nosuki comme ni nga ko waxee nu ñu ko xamee. Bombardier war na dajeek Polonais bi le vingt mars bii di ñëw foofa sa Varsovie léegi nag coach Diamond bi mu ngi di listé point fort adversaire bi di Bombardier nee na euh, adversaire bi bi dafa am benn crochet droit boo xam ne nii crochet droit bu redoutable la crochet droit boobu nee na Bombardier war na ko éviter nee na également euh, combattant bu mobile la waaye dafa mën a attaquer point faible yi nag moom nee ne euh, euh, polonais bi amul condition physique nee ne condition fisique bi mu am naturelul ndax benn combat bi mu doon def dañ ko mos a disqualifié ci affaire dopage nee na kon poids bi mu am euh, du poids bu naturel waaye wax na fa également bombardier comme ni nga ko waxee de bu coup d'envoi bi demee rek dafa war a attaquer ndax keebe wala poids bi war na ko permettre mu attaqué de le départ pour mën a gañe adversaire am bii di Pudzianowski. loolu nekk ay kàddu yu coach Diabo di koy nga xamante ne bii macha allah man dama ko naw ndax macha allah xam-xamam. ci wàllu dëgg la may Babacar dëgg la souvent bu ay MMA amee euh, journal suñu làmb wala euh, souvent kii Abdoulaye Dembélé day choisir dem jël ko ndax moom euh, xam-xamam dafa màcc ci wàllu sport de combat chaque fois également day def ay analyses yoo xam ne nii yu pertinente la. xam-xamam daal euh, salué nañ ko ci wàllu làmb am na solo te Assane lu mu wax rek téere la yaakaar naa li mu fi analysé yëpp ñun noonu lañ ko gisee. dëgg la souvent bu defee analyse à la fin di combat danga koy gis souvent noonu lay demee. Mhm, mu nga noonu Reug Reug du Dubaï ca lañ ca wax nee na Sénégal daf maa yónni yàqamti ma. moom mel ne moom xam na ni koy xaar Ndeye Mbacke. kii di Reug ah, war a bëre incha allah bu ci yàlla amee le 7 avril euh, muy troisième combat ci wàllu MMA xam na bu baax a baax a baax li koy xaar ba tax na moom nee na Sénégal ko yónni yàkkamti ko taxawaalu waru ko benn yoon Assane. dëgg la Mbaye Babacar depuis Dubaï euh, Reug Reug nee ne mm, Sénégal daf ma yónni yàkkamti ma noonu la ko journal suñu làmb waxee Reug mii mi nag war na am benn combat MMA le 7 avril à Singapour mi ngi ci war a dajal nag iranien bi di Mehdi Bargué. waaye eh, ci eh, échange bi mu def ak suñu làmb guy gi eh, Reug Reug wax na ci également ci adversaire bii di guy gi nee na guy gi benn adversaire boo xam ne ni moom mu la moo gën ndax guy gi dafa dangereux boo ko joxul respect rek am na foo xam ko dafa jaaree mooy loolu euh, Babou Ndiambane mu ne les jambaars de Dakar prêts à tout le monde bay waaw mi ngi noonu Babou nekk mbër ci làmb ji nekk fële ca écrit les jambaar moom daal leen na pare na pour bëre ak ñëpp pare na ngir jàmmaarloo ak ñëpp nekkalu fi benn mbër di xaar man bëgg naa loolu ci mbër bëgg naa mbër ma nga xamante ne bii du du nekk di ciblé ay mbër wala de pare waaw am ay xaaj ak seen daal. dëgg la Baye Babacar Babou Ndiabane nekk ci les jàmbaar de Dakar moom nag nee na pare na pour affronter mbër yu nekk ci làmb ji yëpp waaye nag nee na Euh, jusqu'à présent benn combat rek la jot a jot a amagum ci lutte avec frappe ndax moom ci lutte simple lañ ko gën a euh, xàmmee. Mm. moom nag nee na idole la moom mooy Edouard Dimle Dior nee na euh, lu simple bi gagné na ci ay drapeaux yu bëree bëri gagné na ci ay nag ay xar ak xaalis te looloo tax sax li ñu ci gagné moo tax këram googu mu mën ko samp. waaw jëf waay. <laughs> mu ngi noonu reconversion de l'ancien roi des arènes Yaxya Diop Yékini chaque chaque s'active-t-il dans l'élevage Mbaye Babacar. Yaxya Diop Yékini gannaaw ba mu bàyyee bëri moo fi nekkoon roi des arènes macha allah ñëpp ñu bëri euh, doon ko supporter gannaaw ba mu bàyyee bëri nag Assane dafa mel ni léegi mu ngi ci élevage bi. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee comme ni nga ko waxee journal suñu làmb dafa posé wu benn interrogation nee na reconversion de la l'ancien roi l'ancien roi des arènes Yékini s'active-t-il dans l'élevage nee na ndax Yékini dafay activer wala dafay. Euh, affaire élevage ndax dañ bi ñu ko invité dernièrement ci RFM matin daf ko daf ko daf ko daf ko touché. nee na nag leeral na ko nee exactement lu moom mooy def élevage ne frère am magam moo koy def mu ko ciy jàppale waaye lu mën a xam mooy. ginnaaw bi mu arrêté carrière depuis cinq ans li leer te wóor mooy Yékini moom au nekk na promoteur ndax depuis quelques années ngi nii chaque année day tëgg ay combat de lutte yu bëri te ci def ay mise yu takku également. bàyyi na bëre wante bàyyiwul làmb. bàyyiwul bëre waaye mi ngi ci làmb toujours ndax mi ngi tëgg ay combat mi ngi def ay détection di eh, permettre xale yi ñuy ñuy montrer ci galaay yi. am na solo. moo ngi noonu nag Jules euh, Jules booy Jules écrit Falaye Balde dañ ko dafa ne Ama bale est mon lutteur préféré mu mel ni moom Ama Baldé ci xolam. waaw soo soo dafa delloo battu ca ndaa rek ndax bu nekkee écrit Falaye Baldé ba pare ne Ama moom mooy idolam yaakaar naa def na li mu war a def moom nee la bu amoon tey mbër mi nga xam xamante ne bi moom lay roy ci làmb ji wala lu mbër moomu def mu jéem ko def Ama Baldé la asal dëgg la comme ni ko Ndeye Mbacke waxee Boy Jules rubrique Leewtoo bu suñu làmb lañ ko invité comme ni nga ko waxee Babacar moom nag nee ne Ama Baldé moom mooy lutteur préféré am comme ni nga ko waxee ba tey euh, boo nekkee écurie Falaye Baldé Ama Baldé nekk sa lutteur préféré wàcc nga waaye également wax na fa combat bu ko gën a métti ci àddunaam nee na première défaite bi mu amoon contre mbër mi tudd euh, mbër mi euh, benn melo nee na défaite bu nekkoon Olympique Ngor nee defet boobu daal moo ko gën a métti ci àddunaam. benn melo moo ko daal défaite défaite bu métti benn def na ko. <laughs> ndeysaan mu ngi noonu promoteur et arbitre reçu par le CNG mardi incha allah. mu mel ni ñoom ñii di promoteurs yi ak arbitres yi euh, waa CNG ñoo CNG ñoo leen war a dalal tey fële ci arène nationale Assane euh, mu mel ni euh, ñoom ngi fi ñu ngi xaaral lu am solo tukkee ci waxtaan bi. dëgg la Mbaye Babacar réunion boobu tey jii wala tey jii la war a am tey di mardi mardi 16 mars 2021 suñu laa mu ne ne CNG bi day dalal promoteurs yi ak arbitres yi. nee na nag promoteur yi lay njëkk dalal à partir de quinze heures bu ñu ci génnee mu dalal arbitre yi à partir de 7 17 heures xam naa nag dinañ fa waxee wàllu démarrage saison bi promoteur yi dikk jël seen date waaye également arbitre wax nan la ñuy toogee comme saison bi ma ngi noonu nag dañuy dem ci li nga xam ne mooy journal record compétition avec les des stades partiellement remplis les promoteurs de lutte simple pas enthousiasme mu mel ni ñoom sawaruñu ci loolu noonu décision boobu. waaw ñooñu ñooy promoteurs yi tëgg làmbu simple. xam nga làmbu simple nag ak wii clos dafa dafa dafa dafa neexul ñoom daal nee na huis clos par ñoom daal nee na huis clos parcelle bi ñuy wax. bi bi ñu doon wax dëgg yàlla sawaruñ ci wax dëgg yàlla ndax li ñu xam mooy tëgg làmb làmb ji fees tëggkat yi ñëw supporters yi ñëw mbër yi ñëw mu neex. dëgg la Mbaye Babacar euh, dëgg la ministre bi permettre na amateurs yi ñu revenir ci stade yi. waaye ba léegi waxul ñu ñëw fa n'importe comment dañuy dañuy réduire euh, capacité stade yi. Uh-huh. bu dee 5000 la ñu def fa 2500 bu dee 10 000 la ñu def fa 10 euh, ñu 5000. Uh-huh. loolu nag la promoteur yi waa lutte simple yi ne ñoom d'accord ci ñoom daal bu doon seen sago ñu jël stade yëpp duy ko ba mu fees waaye ñu respecté mesure barrière ndax waxtaan waxtaan record mm, journal record wax wax na waxtaan na ci ak Pape Dia kooku promoteur. je ne suis pas euh, euh, euh pas organisé dans moom. organisé wax na ci également bu jigéen la nekk ci moom nee na bu naree organiser ci micro moom mu xaar déwén moo ko gën a ndax euh, orga mën nañu organiser Euh, bàyyi nit ñi ñu ñëw te ñu respecté mesures barrières yi. xalaat naa li simple moom euh, huis clos huis clos du ci du ci du ci yomb quoi. mais huis clos partiel du leen arrangé ndax euh, boo misé un million xaaj stade bi yaakaaruma ne booy jaay billet di nga ci génn te ñoom billet rek la pour ñu mën ci génn. amuñu sponsor amuñu parrain amuñu parrain dañ am parrain mais amuñu sponsor te parrain bi parfois mën na ñàkk def li nga bëgg. dëgg mu ngi noonu Assane ak ak Covid bi fi mu nii est-ce que gis nga ne huis clos partiel bi waaw ak mbas moom forcément dinañ def benn solution doo ñëw euh, indi nit ñëpp nit ñëpp ci ci esaat bi bàyyee la noonu waaye mën nañu indi indi indi benn nombre boo xam ne ni dina am importance ba pare ñu respecter mesures barrières yi distanciation sociale par exemple bu dee dix mille places la ñu indi cinq mille places yi. ba pare euh, sol masque yi euh, utiliser gel yi je pense que euh, benn solution la boo xam ne nii combat mën na ci dem. Assane nañu gars yi dem ci stade yu bëri tata yi la ciy am moo moo moo raw foofu li am ci stade yi nañu bàyyi nit ñi dem ci stade yu bëri. waaw dëgg dëgg du romb ndox. tata yi bàyyi nit ñi dem ci tata yi buuxante ba fa nekk. moo raw li buuxante ba nekk ci stade. dëgg ku nekk da toog jël sa place. dëgg la tata da taxaw wéeru wéeru kii. loolu doy na waar daal. réunion ce jeudi incha allah. mu mel ni association ba la nekk adressé woon ñoom ña ngay waajal réunion incha allah bu ci yàlla àndee alxames ñoom tamit xam naa ñu ngi préparé di ci jéem xool nu ñuy commencé seen ay seen ay jongante association arène Adrien Senghor mi nga xam ne nii Pangor Sembou Diouf moom moo ko jiite euh, journal record nee na dañuy def benn réunion jeudi bii di ñëw réunion bi nag euh, arène Adrien Senghor bu Grand Yoff lay amee waaye li mu fa nar a wax moom mooy ñu définir seen maanaam. woo promoteurs yi ku nekk jàpp date ñu xool euh, le reste de la saison nan lañ organiser ba promoteur bu nekk gis sa bopp. mu ngi noonu Assane la jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas si bopp xibaar yi mbay looy tàggatoo xanaa jaajëfal ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di leen dig dig daje incha allah suba ak jàmm bu ci yàlla àndee. Assane Waalo. Dembaake comme d'habitude di remercier waa Linguère remercier Yacine Fall <laughs> di leen jox dig daje bu sew jom allah. mu ngi noonu leen jaajëfal bu baax di am contentement ak mbégte ci yéen ñi nga xam te ne ñun ñuy topp fii ci Leewtoo TV chaque jour ngi leen indil li gën a fës ci noonu nag damay sant mu ngi nii di gërëm bu baax suñu sponsor leader di Uri Jador leen naan ngeen conservé ko maa ngi sama caméraman bi Mansour kontaane naa la bu baax hmm? Aïda Matou Yacine naa leen yéen ñëpp ah euh, borom merci borom bi maman Ndéla borom ndékki yu neexi maa ngi la jaajëfal bu baax lañu jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV